Timothée Coly ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi leen di maa ngi leen di ngay coordonnateur amical euh, liggéeykatu euh, électricité euh, ñu gën leen xamee prestataire au senelek ngeen door xiifal depuis lundi mu doon li nga xam ne yéen a ngi koy ñaxtu ñu xoolaat seen anam gi ngeen di liggéeyee gën leen a jox gëdd fa ngeen di liggéeye tey fu ngeen toll ci seen plan d'action bi ngeen door. waaw voilà donc euh, grève de la faim bi bi ñu ko dëgmalee ba léegi. Hmm. wax dëgg fa yàlla euh, ay nit ñu baax vraiment set si nañu. Hmm. Euh, ñaa ngi woote ku ci mel ni ay ay ay ay responsable yu mag. ñoo hmm. xamante ni vraiment ci réew mi lañ dëkk nekk ay kilifa. waaw ndax tamit aussi ay ay ay jeunes sénégalais bu ñu jógee nekk ci mbedd bi di xeex rek pour seen avenir. loolu def naa ne bépp sénégalais daf see war a jàpp te démb démb sax ci guddi mardi ci guddi démb ci guddi sax am na ñu bari ñoo xam ne vraiment seet si nañu. Euh, ku mel ni ku mel ni Mandiaye Kébé député euh, nekk en même temps maire de maire de maire de Fass Barigo mhm. nekk un membre fondateur du Sutelec mhm. donc am na tamit aussi euh, une délégation boo xamante ni Sutelec la jógee Senelec ay nit yoo xam ne Senelec lañu nekk vraiment seet si ñu donc innocence innocence Sap Ndiaye tamit aussi ñu ñu ngi jokkoo téléphone mhm. mu ngi apporter vraiment tamit soutien am te xam naa ne tey jii nii tey jii nii incha allah am na yeneen kilifa yoo xamante ni ñu ngi waaj pour ñëw seet suñu en tout cas fii ci bërëb bi. Mhm. buñ dellu si waatee tey lan moo tax a jóg amicale boobu nga xam ne taxawal ngeen ko te ban année ngeen ko sos. voilà donc euh, amicale bi li waral ñu sos ko lenn kese la. Mhm. parce que ay jeunes sénégalais juddoo ci réew mi màggee ci réew mi def ay formation électrique mhm. dugg Senelec di liggéey Senelec bu njëkk avant deux mille quinze dafa leen doon fay chaque fin du mois cent trente mille ñu mhm. am seen i de salaire mais il s'est trouvé ba ñu demee demee demee demee ba jamono en deux mille quinze mhm. Senelec nag bugutul jël benn engagement ci personnel boobu noonu léegi nag ci la jëlee nag euh, ne gars yi nañ posté wu en GIE pour se désengager mhm. ñu accepté mais malheureusement yàlla dóor leen parce que GIE noonu amuñu koom-koom boo xamante ni dina mën a fay seen i ndax imagine tey ngay liggéeyloo nit toog ay quatre mois cinq mois ba un an ko fay te mu nekk borom kër war a fay war a fay ndox war a fay courant war a fay location war a fay dund xale yi mhm. loolu déjà dafa métti te xam ne <clears throat> liggéey bu ñuy liggéey bi nga xamante moo nekk ëllëg ñu maîtriser nañ ko waa kon lan lan toog di xoolee ba chaque instant bu gars yi di embauché rek jël seen i mbokk di dugal ñoo xam ne mosuñu liggéey Senelec ñu jël leen di leen dugal ci biir Senelec bi te ñun ñu ko gën a yeyoo ñun nag ci lañ jógee daal di constaté wu waxtaan def benn man man sama bopp maa jóg sillonné au niveau national. Hmm. bi ma sillonné au niveau national vraiment bépp prestataire boo xamante ni rencontré naa la ci région bu ma dem expliqué la situation bi li ñu war a def dañ cee ànd ak man parce que xam nga ne loolu noonu pour sa avenir moo tax ñu koy def. Hmm. ñoom ñëpp ànd seeg ñun ci lañ nag vraiment di organiser activité activité di fa ay marche di def lu ne mais Senelec nangu loon réagir ci lañ nag vraiment. ñu ngi depuis le 29 juin 2021 ñu toog di patienté imagine ku déposé benn demande d'audience depuis le 29 juin ne serait-ce pour négocier parce que directeur moom moo ne woon tijji mhm. ñu toog toog toog quatre mois kenn réagirul ñu ne xam ne nag li ëpp day ñu ne nag léegi comme que ñoom nag ñu jàppale waaw ñun ñëw nañ nañ ñëw fii Dakar def tàmbali suñu xiifal mhm. lu ci mën a am rek ñu xam ne loolu seen responsabilité la donc loolu tey moo ñu indi moo ñu moo ñu indi en moo moo moo moo moo moo tax ñu créé amicale yi maanaam condition de vie nekk ay conditions yoo xam ne dafa précaire. 2017 le collectif euh. la amicale bi daal di taxaw. ba mu taxawee ah. léegi euh, ñaata ngeen toll ndax boobaak léegi am na ñi nga xam ne jot nañ leen génne ci boobu euh, boobule amicale dugal leen régulariser leen maanaam. bon euh, euh, c'est au temps de Pape Dieng xam naa ne Pape Dieng moom moo nekk benn directeur boo xamante ni moom moo fi nekkoon donc Pape Ndiaye même problème bi lañ amoon ak moom parce que ñun ñëpp dañu bokkoon ci amical boobu noonu. Mhm. mais bi Pape Ndiaye ñëwee li Senelec di défendre rek mooy li ñu doon waxtaanee sànq ci affaire lien lien yooyu noonu Pape Ndiaye taxaw ne leen carrément Senelec coow li. Mhm. ci la wàccee Pape Ndiaye daal indi Mouhamadou Makhtar donc Mouhamadou Makhtar mu ñëwee wax dëgg fa yàlla ak gorom ak li nga xamante ni vraiment bëgg Sénégal jël ci ñoom quatre cent quatre-vingt-treize personnes. Mhm. donc nag il restait quatre cent quatre vingt dix yoo xamante ne dañ ci nekkoon léegi nag ñooñu noonu tey vraiment ñoo fi ne. Mhm. mu nekk amical boo xamante ni quatre cent quatre vingt la koy war a si wax ma ñeenti xaw ma ma mën daal dina ma xaw a dina ma xaw a tiis. dinañu dégg <laughs> dinañ comprendre. voilà donc 499 lañ. au mhm. niveau national. Mhm. waaw maanaam su ma nee au national Sénégal bi yëpp la. fépp foo dem fépp foo dem ci Sénégal rek am nañ ko koo xamante ne nii télé la koy liggéeyee te bokk ci amical bi waaw donc nag loolu waral vraiment ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu créé ñu créé daal li nga xamante ni moom mooy amical bi kon bu ma la déggee ngay wax bu Matar Cissé ak Pape Dieng ak tamit mm. ki nga xam ne moo fi nekk tey di bi tey euh, benn mm. yoon rek la ñu jël en compte seeni sollicitation donc xam nga xam nga xam nga situation mm. situation des bu taxawee mm-hmm. donc sàccuñu fenuñu doo tëjuñu yàquñu dafa am lu ñu métti rek ñu koy kaas. Mhm. la ñuy kaas lenn kese la moo nekk régularisation parce que imaginer nga nekk si boîte Senelec di la exploité ki ci gën a at li mu totalité Senelec fa mhm. te bokk suñu amica xam nga ñaar ñaar la fa def. Mhm. def na fa juróomi at am na koo xamante ni def na fa euh, quinze ans am na koo xamante ni def na fa vingt ans am na koo xamante ni nag moom trente ans la fa def il de jigéen bu ñu liggéeyee xam nga ban genre la. prestation de service liggéey dañ lay nar maanaam dañ maanaam limon ngay doon quoi biir Sénégal limon dañ lay pressé ba xoolal doo desatoo benn ndox jël la sànni la fële. mais justement mooy seen liggéey ci biir boîte bi. maanaam liggéey bi nga xamante ni moo gën a métti ci Sénégal. Hmm. prestataires yi moo koy jël ñooy relevé suñuy relevé ba pare facture su génnee. Hmm. ñooy dem jox ñoo dem jox client yi facture échange su jotee te am ñoo xam ne fayaguñu. Hmm. prestataires yi ñooy retourné

donc imaginer loolu yëpp nga ciy liggéey am expérience bi war a mun a doxal boîte bi mais chaque instant rek dañoo constaté ne depuis des années chaque jour chaque année bu conseil administration définir nombre bi ñu war a jël rek bi gis ku ci nekk indi say protégé maanaam seen i doom seen i jarbaat seen i mbokk politique kenn ñoo xamante ni mosuñu xam Senelec ñu doon tëdd ci kër yi nelaw ah, nga bàyyi fi ñi nga xamante ni ñoo gën a xam liggéey bi mën ko ah di ko ñoo xamante ni loolu la ñuy kaw. tey xanaa Senelec dafa pare si si yéen xanaa dafa soxlaatul seen liggéey moo taxit mu taxawee ni déedéet Senelec Senelec musul musul musul musul musul musul dem suñu liggéey tey jii la ko gën a soxla tey jii la liggéey parce que boo xoolee boo xool li nga ka lay defaral yëpp tey boo xoolee agent Senelec bi am na agent yu bëri yoo xamante ni la procédure bi di daj yenn ci naaj bi ñoom xalaatuñ loolu mhm. yenn ci naaj bi kon toogu ne daf la soxla dañoo soxla dañoo soxla bu baax a baax moo tax chaque jour suñu génnee wax rek ñoom fa ñu génn wax loolu la Sénégal di doxee soo génnee wax rek ñoom ñu teg mu ngi teggi tuuma mais ñoo xam nañ ne la ñuy wax noonu dara amu ci la ñuy wax noonu amul lenn loo xamante ni am na ci parce que sénégalais yi du ñu ay dof ñun du ñu ay dof parce que Senelec dañ fay yàgg xam Senelec ni muy doxee xam Senelec euh, naka la ñuy naka la ñuy defee seen recrutement yi loolu vraiment nekk loo xamante ni vraiment daf ñoo métti mais en tout cas de la ma la mën a wax mooy Senelec musul ñoom bu ñu sañoon chaque yi day dañuy yokk rek tey milliards yi ngay dégg nii yëpp bénéfice yi yi ñoo koy indi kon ñooñu bu ñu demee ba toog bu baax dara la. ba ngeen commencé xiifal ak léegi maanaam lëndeek léegi ndax euh, direction ba réagir na ngeen waxtaan ak yooyu bu weesoo communiqué bi ngeen gis. donc bu weesoo communiqué boobu parce que communiqué bi ñu dama mu njëkkee ci communiqué bi. Hmm. soo ma ko mayee parce que communiqué bi am na loo xamante ni wax na ko. Mhm. waaye maanaam euh, yow bët yennuwul mais xam na lu bopp atal. waaw nee na contrat lié wu leen de nee na amul benn yoon fu leen contrat lié. kon mu ngi noonu xam nga mm. xam nga xam nga ay contrat bu ñu lié yow ki am budget de salaire yow ki am ordre ordre de mission ordre de service signé par la Sénélec. Mm-hmm. loolu suñu demoon ci yoon Sénélec du du du du du du yàgg ak dañ koy gagné mais loolu xam nga lu tax. Mm-hmm. ñoom dañu naan lien juridique te te loolu noonu dafa yàgg bañ ko tàmbalee wax ñu ngi loolu noonu man mun naa ne Senelec bu mu nekkee Senelec ba léegi amul benn prestataire buy jóg pour laaj ñu embauché ko prestataire bu jógee di laaj ñu embauché ko rek ñu commencé naan lii amul lien juridique amul lien juridique ñoom waruñu wax loolu ndax man lan la ñu war a wax pour mu leer ci nopp sénégalais yi ñoom nañu wax ne ñun amuñu lien parental au niveau de la Senelec moo tax mënu ñoo dugg maanaam Senelec ñun amuñu fa mbokk amuñu fa papa amuñu fa yaay amuñu fa ndijaay amuñu fa dara maanaam noonu la ñuy recruter. depuis des années laa lay wax nii. Senelec loolu la mos a ay éléments am loolu nag moo ñu métti loolu moo ñu métti loolu loolu la ñu moo ñu metti ba tax tey ñu wàcc ci terrain bi parce que ne xiifal waaw ba keroog jooju na nga xamante ni ñoom dañ réagir mais en tout cas de toutes les façons di nga Senelec seen société vraiment parentale loolu moo fi war a jeex di nga bu ñu fekkente ne dañoo bëggoon doxal Senelec lañ mm-hmm. def l'homme qu'il la place maanaam. prestataire bi liggéey bi muy liggéey Sénégal mhm. mucc ñu ngi doxal ñu ngi def lépp facture facture yéen yéen euh, yéen ñi nga xamante yéen ay client yow am nga kër yow am nga compteur yow tey ku lay relevé prestataire la yow ku lay jox facture la te pourtant coow bu rek wu dañu ne non prestataire bi la prestataire bi mooy joxal facture à temps donc ce qui bi dafa am benn rôle bu bu bu li ci des la mooy ñu mettre ne dans de très bonnes régulariser leen moo tax tey vraiment ñu dëgmal li nga xamante ne vraiment mooy suñu grève de la faim bi pour demander régularisation ci 499 prestataires yi. ñu jox ku ne gëddam tey jii ka fa nekk jiite ko ndax jàpp ngeen ne moo ngi def liggéeyam. kan la moom bi tey. bi tey day wax dëgg fa yàlla bi mu toogee ba léegi euh, mun naa ne jot nañ ko rencontré lu bëree bëri yoon Kaolack maanaam mu def ay promesses yoo xamante ni que que ni vraiment dinañu jël. Euh, ñu dem ba ci biir ba ba ba ba l'an deux mille euh, l'an deux mille vingt le vingt neuf décembre deux mille vingt bi tey oo ma téléphone ne ma ci quatre cent quatre vingt dix neuf prestataires yi moom ñett ñun rek la mun a jël. ma ne ko mais yow ñett ñett soo ko jëlee ci quatre cent quatre vingt dix neuf personnes waaw léegi yow loolu man naka laa koy séddale man nag du ma jaay sama ngor ci yenn mbir yi ci laa ko ne loolu du ma ko nangu boobu ak léegi nag jëmu def benn réaction mu daal jaar nag daal di couper les ponts. comme que ne coupé coupé coupé na tous les ponts te nag vraiment Senelec Senelec dañ ko dëkk mais moomu ko Senelec seen entreprise ñu ñëpp ci bokk yem hmm. tey président de la république moo ko dëkk mais ça va dikk ni ko moo ko moom donc nag li ñëpp bokk nag yoon la ñun ñu jóg kaas loolu pour am dara suñu avenir mais bi tey wax dëgg fa yàlla bi ñu toogee ba léegi ñun li ñu constaté mooy ay recrutement yoo xamante ni awul ci yoon ay nit yoo xamante ni nekk nañ par ay millions xamante ni nekkoon nañ ci yeneen entreprise comme Sonacos di liggéey foofu mu débouché leen foofu ñëw jël leen te ñooñu ne ba ñëwee fa la ñu fekk. Mhm. ñëw jël leen mu def ay recrutement yoo xamante ni awul ci yoon tegul ci dara lu dul yëfu politique. loolu vraiment dañ ko seetlu loolu métti ñu ñu nag parewuñu pour arrêter la nga xamante ni ci lañ nekk nii. tant que amuñu loo xamante ni vraiment lu leer na suñu nopp. kon daal bu ma la déggee ngay wax seen xiifal bi parewu leen pour yëkkati ko malgré conséquences yi parewuñu mukk pour yëkkati ko parce que. waa léegi ñi ci am santé fragile comme ay diabétique et ñooñu mbàyyee nag leen di xalaat. ñu ngi xalaat lépp xam nga c'est-à-dire nit am na fu muy toll day sës. Hmm. pratiquement fii tey bu fi ñu ñu fi nekk nii yëpp ay père de famille nañ ay mère de famille nañ ay soutien de famille nañ donc mu nekk benn situation dafa def dafa dafa dafa dafa doy waar. Hmm. tey imaginer koo xamante ni moo doon joxe dépense këram mu ngi fii tey grève de la faim bi naa la na na naa la xamal benn mbir tey mhm. bien vrai que ñun ñu ngi fii tey di dégg ma la nga xamante mooy suñu grève de la faim mhm. mais grève de la faim bi dafa dem en ce moment dafa affecté suñu kër yi parce que suñu papa yi mënatuñu lekk normal ndax chaque jour ñu ñuy xalaat suñu jabar yi mënatuñu lekk normal ndax chaque jour chaque jour ñu ñuy xalaat mhm. la nga xamante ni loolu lañ bàyyi woon suñu kër yi ah, bay ñëw fii ca Dakar pour dëgmal di tey lañ fa bàyyi yëpp jeex na maanaam fu mu toll nii suñu doom yi seen bopp wax dëgg fa yàlla chaque jour ñu ngi wootee di laaj tey suñu doom yi dañu war a dem école lii gënalu ñu ñu bu ñu gënoon tey li ñu gënal lan la mooy am am am vie bu normal quand même loolu kese la donc nag ñun ruus nañ ñëw ba fii Dakar dëgg ma la nga xamante ni mooy suñu grève de la faim tàmbali ko depuis lundi ah. Mhm. bëgg ko lever ci ay affaire caaxaan. duñ ko def tey duñ ko def suba. la ñuy bëgg mooy la nga xamante ni mooy direction générale de la faim nag mën a réagir par rapport à cela. Mhm. déjà tey jii nii am na discussion ak ñoom yónnee naa ne naa benn délégation boo xamante ni. ñu war a waxtaan ak ak euh, ak Sutelec. Sutelec maanaam benn syndicat la boo xamante ni dañoo nekk biir Senelec. nekk d'abord nekk ay agent nekk ay fa yàlla seen secrétaire général mu ngi tudd Abib Aïdara boobu ak léegi vraiment mu ngi ciy jàpp. donc tey jii dañu am rencontre ñu jéem a xool ensemble naka la ñuy naka la ñuy naka solution. si le faut ñu xam année bii tey ñaata la ñu war a jël li ci def ñu def ko protocole boo xamante ni. Euh, mën nañu ko def deux ans ba trois ans nga xamante ni chaque année rek dinañ mën a jël ci amical bi ba amical bi mën a jeex. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Timothée Coly. maa maa di maa leen di maa leen di baax a baax aussi ci émission bi. Hmm. di di ñaan yàlla rek vraiment sénégalais yi aussi euh, lii nekk na vraiment combat ñëpp. waaw ñu ngi oh, vraiment ñëpp ñi nga xamante ni vraiment mën nañu cee jàpp nekkee kilifa ci réew mi. Hmm. ñu vraiment waxal ci ndaw ñi. waaw parce que vraiment li ñu gënal rek moo nekk am demee fii bu normal parce que bu ñu naan émergence rek émergence bu ñu ko wax tant que emploi des jeunes amu fi Macky Sall na ko fi donc ñoom bi tey na nag dañoo toppul waxu Macky parce que bu ñu ko toppoon duñu àgg fii tey hmm, waaye nag de toutes les façons ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm vraiment ñoom tamit ñu ngi hmm. jërëjëf